Euh, Modou Fall Elias Yobal euh, ñëwoon fi tey àndoon ak euh, DG Abdoulaye Tounkara ak ñi nga xam ne ñooy ay collaborateurs yu àndal yëpp ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu commencé di liggéey mu yàgg ba tey muy mbirum engrais bi nga xam ne amul produit chimique te muy engrais boo xam ni ñi ëpp ci borom xam-xam yi ci àdduna bi te yëngu ci wàllu mbay nangu nañu bokk na ci engrais bi gën ci gàncax tey nag ñu ne woon dañuy ñëw ci région bi. Diourbel ñëw gi ci région bi tamit dara waralu ko lu dul euh, ñëw nga xam ni ñooy suñu mbokk baykat yi nii engrais bi ñoom lay accompagner ndax engrais bi bu mu jógee ci fi mu jógee mi ngi euh, basam mu ngi jóge ba Turquie euh, Turquie mooy base bi ak fu mel ni France dugg na Afrique fu baree baree bari ci Afrique mën nañ ci lim fu mel ni Nigéria Mali Guinée fu Sénégal bi fu baree bari ci Afrique engrais bi dugg na fi tey nag ñu ñëwoon ànd ak suñu sëriñ bi jaar ko ci moom muy Baye Cheikh Diakhaté euh, mu ànd ak DG Abdoulaye Tounkara ak euh, ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ànd ci délégation bi ñëw ziar si Serigne Mountakha Bachir euh, Serigne Mountakha Bachir nag boo gisee ñu ñëw ziar ko jël ci engrais bi nga xamante ne si mooy produit bi nga xam ne amul amul produit chimique indil ko ko def ci ay ab lim bu bari indi ko def ko addiya jubluñ ci leen lu wane ni Sénégal li fi nekk ci mbay mooy li nga xam ni moo moo ëpp koom wala mooy gën a développé li nga xam ni mooy koom-koom réew mi ndax ku ne xam ne réew mënul am développement te du dañuy mbay ñu gis ni mbay mi tamit fii ci biir Sénégal yoonu murit ñoo ci gën a fés ñi ñuy tudd di tudd yoonu murit ñoo ci gën a fés ñu gis ni tamit sëriñ si nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal bu buñ ci tuddee sëriñ taxa Bachir di ñaan mu yàgg fi loolu te wér xalif général de Tidiane xalif général de Layène Ndiassane Ceneba Ceneba bu ñuy lim duñu matal ñoom ñëpp dañu gis ñu bàyyee seen waar ci li nga xam ni mooy développement wu réew mi te jaarale ko ci suuf si di bay gàncax gi ñu gis ne nag comme ñoo ñu seen liggéey li nga xam ne moom nañu engagé wu mu doon seen ay engagement li ci ëpp mbay la te produit bi mën na leen accompagner ci mbay ñoo ne kon dañuy ñëw euh, jaar ci sëñ Muntaxa tàmbalee ci moom te incha allahu taala fas ñu yéenee dem ci kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp yóbbu leen suñu produit bi euh, produit bi tamit biñ ko indee ci réew mi jaar nañu fi nga xamante ni si fi nañu war a jaar ndax euh, jaar nañ ci état bu Sénégal euh, gis ministre agriculture kon moom ñu ngi koy remercier bu baax vraiment ci liggéey bu am solo bi nga xam ni mu ngi koy liggéey ci mbirum mbay kon daal euh, tey suñuy tànk yëpp tànki nemmeeku la tànki gëstu la tànki seet si suñu sang bi di suñu sëriñ di sëriñ taxa Bachir ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ku ne xam waaram yi muy bay ci li nga xam ne mooy toolub Sénégal ci jàmmali nit ñi ci benn leen ci booloo leen ci ñu bokkoo ci ñu jàppante ñu gis ne nag kon mooy bunt bi nga xam ne ci lañ mën a jaar bu ñu duggee réseau de Diourbel pour ziar ko jox ko suñu addiya mu ñaanal ñu ci te rafet nañ jor ci ne ñaan bi mu ñaan incha allahu taala yàlla dina ko nangu ndax nit la koo xam ne fenn fu ne ci àdduna bi nit dafay bàyyi ko pour sàkku ci moom ñaan. yi pare nañu pour pare nañu pour mu ñëw mu mu ñëw ñu am zone boo xam ni day basé wu fii ci Touba pare nañ pour. duñ ci am sax benn magasin rek wala ñaar ndax xam nañu Touba ni ñu mer ci mbay xam nañu Touba it ni ñu mel ci bëgg lu baax kon bu ñu fi indee lu mel nii présenté leen ko dañuy ñëw nag samp fi suñu ay magasin samp fi ay nit yoo xam ni doomu dëkk bi lay doon ñu créé wala fi emploi des jeunes ndax loolu rek mooy suñu warteef ci suñu diggante ak population bi waaye mooy suñu warteef it ci suñu diggante ak sëriñ bi ginnaaw bu mu ñaanlee pare kon marché yi wala baykat yi nañu xam ni engrais bi dugg na Touba te incha allahu taala dana leen ko ne di leen accompagner voilà. ñaari kàddu voilà bisimilah euh, donc euh, je suis monsieur Tunkara Abdoulaye président de la société MNA et de l'association Amana. Euh, nous œuvrons dans les actions durables. dans un premier temps, j'aimerais remercier la ville de Touba de nous avoir reçus. Euh, Touba est un acteur euh, incontournable euh, dans la sphère sénégalaise et dans la progression de notre projet. Il était indispensable de venir rendre visite au Khalif général pour lui parler de nos ambitions et en même temps pour lui faire état aussi des, des sols sénégalais que nous avons analysés. les scientifiques le répètent, les agriculteurs s'inquiètent, Et certains, du moins quelqu'un, quelques-uns de nos politiques ne semblent pas voir la, la, la tempête arriver. Euh, la dégradation des sols est un sujet majeur. Euh, il nous faut absolument adopter un nouveau paradigme euh, afin de, de basculer vers des solutions beaucoup plus durables euh, dans notre agriculture. sachant que son Excellence euh, le Président de la République Macky a vraiment euh, axé son programme euh, sur euh, l'agriculture pour pouvoir développer à la fois socialement et économiquement le, Sénégal. Euh, donc euh, nous sommes un acteur parmi plusieurs acteurs où nous proposons justement une nouvelle méthode pour accompagner les agriculteurs dans leur développement personnel. Euh, tout en préservant l'environnement ainsi que leur sol. Et euh, nous, nous, espérons du moins euh, être euh, ent entendus par euh, la sphère gouvernementale et être euh, accompagnés afin de, afin de vraiment répondre à cette urgence imminente qui clairement Euh, émane des agriculteurs dans, dans, tout ce qui est la dégradation de leur sol et aussi dans la salinité de leur sol ainsi que l'alcanilisation. Euh, et on espère apporter la, réponse adéquate pour pouvoir basculer d'une agriculture beaucoup plus propre et beaucoup plus euh, durable. Le projet à Touba, comme je l'ai mentionné beaucoup plus tôt, est que Touba... Est, il y c'est une réalité, Touba est un acteur majeur dans, le développement à la économique du, du, Sénégal et aussi euh, social. Et, euh, Touba a une histoire. Et l'histoire de Touba nous montre que c'est un acteur incontournable euh, dans le secteur de, de, de l'agriculture. Donc euh, la visite aujourd'hui à Touba est surtout euh, dans le thème de sensibilisation. Euh, et, aussi bien sûr euh, à la fois cultuel et culturel euh, d'obtenir euh, quelques, quelques mots du calife actuel, monsieur Muntagam effectivement, euh, aujourd'hui nous avons pu offrir euh, une quantité conséquente au Khalif de, de, nos produits pour qu'ils puissent euh, les appliquer sur euh, ces champs. Euh, actuellement, nous avons déjà un dépôt près de Toba qui se trouve à Njob, en périphérie de Djurbel. Donc il y a vraiment cette volonté de vouloir s'installer dans la région de Touba car encore une fois, je le répète, Touba est un acteur incontournable dans le milieu socio-économique euh, au Sénégal. Alors, euh, je suis M. Tunkara Abdoulaye, président de la société euh, et de l'association Amana. Euh, nous œuvrons dans, les, dans, dans tout simplement euh, l'agroécologie. Euh, notre fer de lance est de proposer un nouveau paradigme euh, beaucoup plus durable et beaucoup plus soutenable pour l'agriculture locale.